et qualifier ça de cokkaas parce que li nga ci xalaat laa ci xalaat dama ne mais mu ngi dem mais mu may. mu ngi may way mais mu ngi dem mais mu ngi may nommé. affaire bi du diire ma toog ci benn émission ak Thérèse fay quartier général ci weeru koor bi Thérèse fay na ma non institution bi c'est une institution c'est la quatrième institution du pays même ñi fi ñëw bu ñu même ñi ñi même bu fi Macky jógee ñi nga xamante ne euh, ñoo fi nekk mënuñu ko dindi par décret assemblée rek lañ ko mën a dindee et institution boobu mën nga ci jàng lu bëri ma waxtaan ci ak samay nit samay grand frère samay xarit ñi may liggéeyandool ñu ne ma mais malal il faut prend ça parce que c'est pas quelque chose qui te compromet parce que société civile dañ ko fa prévoir société civile comme am na gens qui n'ont pas compris ça. oui mais c'est pas grave mais il ñu xam aussi. oui mais mais nag nit ñi bu ñu bëggee comprendre dara dinañ ko comprendre am na ñoo xamante ne comprendre nañ ko mais bëgguñu ko wax. ok man de je ne savais pas je ne savais pas comme ça. la demee. moo boo demee ci nit ni ñu tëggee institution bi noonu la institution bi demee. boo demee ARMP agence de régulation des marché publics balaa état bi di joxe marché. bu nit ñi soumettre appel à candidature am dafa am ay membres de la société civile yu fay nekk pour ne waaw lii d'accord nañ loolu am na ay institutions yu état teg yoo xamante ne représentant société civile yi dañ fay nekk te conseil économique mu ngi fi depuis 1961 maintenant nag les politiques l'utilisent à leur guise loolu mooy problème bi Ablaye Wade bi mu ñëwee def ko dindi ñu créé CRAES muy conseil muy conseil xawma lan de la république Mbaye Jacques Diop nekk fa Ablaye Wade am problème ak Mbaye Jacques Diop tas ko après créé waat ko affaire bi ñëwaat Macky bi mu ñëwee yokk ci e conseil économique social et environnemental e boobu moo ci amuloon environnemental xam naa loolu c'était par rapport au COP 21 et cetera ba pare yokk ci yeneen 40 membres quarante membres yooyu ñu ci ñu mu ci jël nag ay éleveurs lañu ñii ay éleveurs lañu xam élevage ñi artisan artisanat lañ nekk. secteur bu nekk secteur bu nekk. c'est vraiment te kuréel la boo xamante ne dafay def ay propositions yu am solo mais boo jëlee kuréel bu amee solo noonu à chaque fois nga ciy fal. quelqu'un pour la récompenser politiquement. perception bi ci askan wi di am mooy c'est une institution politisée yaa ngi comprendre donc loolu moom mooy li nga xamante ne mooy conseil économique et social et environnemental le vingt cinq juin ñu installé ma ñu jóge fa dem session buur gouvernement bu bees bi parce que pour ñu installer ñu d'abord gouvernement bu bees bi mooy def décret décret moo def décret ñu installé ñu bu ko deful woon kenn du ñu installé et ça c'est une attitude républicaine qu'il faut saluer ñu toogaat mu jox ñu ay orientation fekk fal nañ ma man président de commission culture artisanat sport ak tourisme commission mu ñu jox ñu ay orientation sur des questions d'employabilité des jeunes sur les industries culturelles et créatives sur le développement du sport sur le financement du sport sur beaucoup de choses. Mm-hmm. ñu xalaat si jébbal leen ko. donc gouvernement bii nii liggéey na. ak conseil économique social parce que jox nañu ay orientation ñu liggéey ci dem. vous avez travaillé pour pour pour Diomaye. oui nous avons travaillé pour il faut pas que les gens euh, xam loolu. on a travaillé bind ko maintenant ci biir affaire bi. Quand tu entends certains commentaires, il y a des gens qui s'arrangent à faire de moi un militant de Macky. mais loolu seen xalaat parce que kenn mësuma gis campagne Macky

moi tuuma avec le temps ça avec le temps day dem day deñ et puis pourquoi je ne suis pas gêné quand les gens le disent parce que effectivement je sais que profondement man dam fa nekk en tant que membre de la société civile déedéet loolu lu ma leer la léegi comme que c'est clair dans ma tête te leer na ma ak sama akulaay taala loolu laa fa nekke suba bu ko ñoom jomaay sosaate def ko beneen affaire wala génne ko wala soxla ma ci institution boo xamante ne moi j'ai pas besoin d'un post politique parce que je ne suis pas un politicien. alors qu'est-ce qu'un poste politique. un post politique moom mooy un post fait sur la base de la récompense. mooy man mënuma nangam ñu fal ma nangam parce que effectivement am naa taxawaay xëy na. malal toog na ñaari yoon jàkk jàkkaarloo ne bàyyi leen Sonko. yow xalaat na régime na lool. bon munuma ko personnellement xalaat dama gëm ni dama gëm ni quand on arrive au pouvoir on gouverne avec. avec les gens qui étaient avec toi et qui ont la compétence de la post qu'on leur confie. Hmm. duma aay ci njaayum keccax ñu fal ma ci njaayum banaana jaaykatu keccax keccax la xam keccax la xam xam na bi ak keccaxu Ndar xam na différence bi <laughs> en parlant de nomination par oui euh, nomination wu euh, soo gisee ñu nominé ku mel ni kilifa bu kër gi crew euh, yanamaar gis ñu nominé aussi ku mel ni nit dof Mortala Gueye def na ay PCA et tout yow ban ban ban hmm. ban kii ban appréciation nga si am. affaire u grand frère laay def. Mhm. parce que ñoom ñaar ñëpp seen mag la. kilifa rawati ci. Mhm. li tax kilifa rawati ci parce que wax na ko bi ñuy ñëw Dakar maa leen dalal. Mhm. wutal leen fuñ nekk. jox leen mer jox leen mer gàddu wax nañ ko fu loolu. waaye xam nga ba pare man su ma demoon kër kilifa yaayam yàlla na ko yàlla yërëm. li may dem Kaolack kilifa di fa nekk sax bëriwul wala su may dem Tamba escale Kaolack war fa fanaan damay dem kër ñoom kilifa yaa ji jox ma né ban néeg bu am kilim moo fa nekk maire bi jox ma ma dugg ci néeg bi tëdd ñu toppatoo ma niñ may toppatoowee bu ma jógee continuer samay activité soxlawuma te pourtant caat moo tax ma xam kilifa parce entre les deux caat moo gën a nekk suma gain en réalité mais man a kilifa kilifa c'est vraiment ku ma xam la ku ma liggéeyandool la ci biir Y'en a marre ñu seq affaire lu yu bëree bëri xamante xamante bu baax a baax a baax biñ ko falee dama ko woo félicité ko ne ko ouvre-toi au hip-hop en général ouvre-toi à tous les acteurs mm-hmm. te nga fexe indi ci affaire bi vision parce que liggéey yomb na dangay wut ci am na loo xam mais demal aussi seeti ñeneen am na lu ñu xam ma ne ko d'ailleurs sax je te propose au Grand Théâtre qu'on organise les cinquante ans du hip hop dans le monde daaw la hip hop am juróom fukki at Sénégal am ci wàllu trente cinq ans ma ko je peux te proposer un spectacle au grand théâtre liggéey nañ ci loolu mu nekk premier aspect booy présenter ma ne ko c'est très ma ne ko il faut donner du contenu il faut faire quelque chose pour le hip hop mais mais njukkal waaw njukkal surtout man mi sax non mais naka lay delloo njukkal hip hop mais moo moo ñu def bi ñu bi ñu hip moo ñu def. ci hip hop rek lañ xaj. mais Karim ñun bi ñuy tàmbalee hip hop hip hop yombul. yombul bi ngay génne sa premier album dafa yomb. bi ngay def featuring ak Souleymane Faye oh, bi ngay def Big Rouge bi ñuy def affaire yombul c'était pas évident nit dof aussi je l'ai appelé ma mm-hmm. woo ko ne ko ubbeekul ci ñëpp déglul ñëpp waxtaanal ak ñëpp mais fexeel que affaire bi à la fois mu am un contenu très artistique parce que yàlla mooy tax ñu fal ay nit mën nga ci am ay avis de part et d'autre mm-hmm. mais on les laisse exercer mm -hmm. aujourd'hui nit dof nekk na ci position boo xamante ne c'est lui qu'on juge moom ak kilifa yëpp. nekkoon nañ ñoom ci ay position yoo xamante ne ñoom ñoo doon jugé nit mais aujourd'hui c'est eux qui seront jugés et ils seront jugés sur la base de leurs résultats mm-hmm. Mm-hmm. mais nag bu fekkee yow lañ dénk da ngay ubbi sa dënn dañ laa dénk nga xam ne alalu askan wi la nga xam ne ñëpp nga jàpp du pour ce ne pas affaire la boo xamante ne aussi fonds bi dafa am histoire fonds de développement des cultures urbaines. Mhm. Macky Sall Y'en a marre taxoon mu créé ko de dafa njëkk a créé bureau des cultures urbaines def décret en 2012 bi ñu njëkkee dajeeg moom biir këram man Fadel Aline Kilifa Thiat Ibamar bi muy soog a toog ci pouvoir muy soog toog non pas Iba Mar bi ñu toogee mu ne ndax wax wax yan post ngeen bëgg ñu ne ko ñuy post mu ne j'avais déjà pensé au bureau des cultures urbaines teg naa ko ba pare boobu sax bureau sénégalais des cultures urbaines BSCU la ko tuddee ñu déglu ko ci nim ko comprendre ko ñu ne ko ni nga ko comprendre du loolu de ñun on te parle de créer quelque chose pour le hip ci lay xalaat la fonds de développement des cultures urbaines 2017 Youssou Ndour organise une rencontre avec les acteurs des cultures avec les acteurs du cinéma de la culture théâtre ñëpp nekk fa Souleymane Faye mu ngi fa woon même Pape Pape Niang woykat mu ngi fa woon te mu woy garab gaa yi toog ñëpp ay Ousmane Sow Ichar gaa yu bëri ñu ngi fa woon ñu toog rappeurs yi fa nekkoon Matador Awadi Xuman na ma yow jëlal parole